du woo kenn rafetlu bu baax teewaayu ki ñii toog ci sa wet teewal président de la république Thierno Birahim Lo di kenn ci yoon wi ñu tudde ko maam Thierno Birahim ndaamal daaru doy na ci jotaayu sëñ Bamba bu ne bu fa ñëwee mën na faa teew monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu maître Madické Niang ku ne xam ku ne xam digganteem ak waa kër Serigne Bamba waaye sa digganteeg moom mu yebal dëkk directeur de cabinet Mamadou Ndiaye mu ñëw tey teewal ko fi bu dul woon xat-xat yi ak yitte ak président yónni ko mooy toog mooy toogal boppam ndax ku ne xam na sa digganteek moom sëriñ Moustapha nag mooy bëgg a jóg ci ku mu jëm Cheikh Abdoulaye Lahad Serigne Abdou Khadir moom la daa yónni ci Serigne yu bari ba ci jiwu wu ñu war a jëndal nit sax sëñ Moustapha mii moo fa daa dem keroog bi ñu génnee Ablaye Lam RTS sëñ Abdou Khadir da ko ni kenn doyuma ci sëñ Abdou Lahat kaay demal ma ci boo ko fëggee guddi du la tëju yéen bokk ndey Cheikh Abdou Lahat nag sëñ war nañ ci weeru wu dee ñu wooteem ndaje ñu ne lu ñu wootee ñu ne sëñ Abdou Lahat la ñu wooteel jaadu na sëñ Abdou Lahat jëf na ci yoonu murit جبلو سنغال با نيتو كدو فاي يوكوم جمعة جي شيخ عبد الله بيبليتيك بي شيخ عبد الله وترود بي شيخ عبد الله داري كامل شيخ عبد الله كان ماك موم شيخ عبد الله انيفيرسيتي بي شيخ عبد الله بيمو توغي دا فا خي خول جمعة جي ني جمعة جي سيغ مودو موسى سا ماك جو باخ جي فونداسيون سيغ فالو ياغالكو دوما كو تك waye dina ci yok lol lu julit sen jumaa yi lu nu tol du julit sama yok wi kokoy jambar jambar aku fit ak pasteef ak ñime ak gëm yàlla sëñ Abdou Lahat ko def Cheikhou Touré da ko ni bu Touba amoon aéroport du ma wàcc Ndakaaru man kat sëriñ Abdou Lahat sëñ Bamba rek laa gëm sëñ Abdou Lahat ni ko boo ma ko waxuloon gëm naa ko bët mën naa xool lu mu bëggul waaye tànk lu mu dox dëgg la bi Cheikhou Touré ñëwee nag ba julli jumaa jot sëñ Abdou Khadir ni ñoŋee ci min barba bi yëkkati xutba bi mënu ko kii laa doon gis ci gént kii rek laa doon gis ci gént de sëñ Ablaat ni ko ah, mooma de mooy sëñ Bamba sëñ Ablaat wooye na sëñ Abdul Xaadir sëñ Bamba te sëñ Abdul Xaadir nekkul xalifa sëñ Bamba rek la ko jàppe loo bëgg ci sëñ Abdulaat nee ko sëñ Abdul Xaadir nee na wala mu yónni mi ànd na ma ak sëñ Ciidi mii ak sëñ Fallu muy muy mu sëñ Abdul Xaadir di gane sëñ Moodu Bustaan sëñ bi jox nu añ keroog maa yenu añ ba ànd ak sëñ Siidi ak sëñ ak sëñ Fallu bañ yeggee mu ni yenn leen ko kii li mu yenu dafa diis ñu yenni ma bool bi ma teg ko sëñ bi gis ko rek ñoom ku ne tëdd kenn waxu ma jekki-jekki ni ko sëñ moo doonu yónni nee na yaag sëñ Abdu Laat yaag sëñ Abdu Xaadir dafa xam ni yéen ñaar benn ngeen kon buñ tere sëñ Abdu Laat sëñ Abdu Xaadir war laay yónnee sa wàll mun ma nee ko la mu bëggoon ci añ bi am na ko tey laay jógee kari ndakaaru kër Karim Fall te añ bi laay añee waaye neen sëñ Abdu Xaadir ginnaaw takkusaan naa ko fekk ca tool ya keroog ba sëñ Abdou Lahad gaaree ca Mercedes bu ñuul ba sëñ Abdou Khadir dañuy bu mu fekk kenn ci biir ñu génn ci biti mu toog ci pilaan bi ñuy tàngal kafe gi mu séddale ne tuuti nag sëñ Abdou Lahad ni dërr sëñ Abdou Khadir waaxu wut ubbi bunt ba ni buntu ba këccit ba pare ni kaala gi paxit ma yuuxu nag din déet kaala gi nii la nii la ba sëñ Abdou Khadir bokki kaala ni ana Ablaay ma ne Mbàkke mu bu ko kenn kat di ko nuyu ku ko gis Sadio Faye nit ñi def nit ñi def nii nit ñi def nii ba mu dugg toog ci biir yéeba nees tuuti soxna moom mi sëñ sëñ Bamba yegsi ñu ni soxna moom mi ñëw na soxna moom mi ñëw na ñoom ñett ñu bokk sëñ Modou jël boolu soow teg ko seen diggante daal ñu mën ne ñëpp génn bu leen kenn wettali nañ leen bàyyi nees tuuti sëriñ Abdoulaat di génn daal di sëñ Abdou Khadir Cheikh Corom Daaru dafa nelaw waaye xam naa suba lañ ciy jublu nees tuuti ba sëñ Abdoulaat demee sëñ Abdou Khadir ni Cheikh Coro de ba nuy jàng dafa mën damaa ragal bàmmeel la mu bëggoon nag dama ko ko bëgg a defal ñu ne ko tool yi daa sori fexe ba sëñ bi yónni sëñ Moodu ak Alaaji Lo Sura ba ñu yeggee ba départ bay dem sëñ bi julli yor yor ba noppi toog ci néeg bi naa gàllankoor nañ ma ba mënumaa jullee Cheikh Coro waaye la mu bëggoon defal ko ko tey rek laa bëgg man koy mbakke loo bëgg yàlla defal ko nees tuuti benn wata ni piip piip mun ma génnal loolu nun ne wata kilifa ma génn muy wata sëriñ Abdoul Ahad moo bi buntu ba sëñ Moustapha bi wàccee ca ni ma sëñ bi ne kenn du ko jullee te ñëwul ma nga daru di ko xaar lu mu doon ci lislaam sëñ Abdou Lahad ka ko ca doyoon mooy sëñ Abdou waaye gëm ak bëgg ak wóolu ak sopp sëñ Abdou Khadir ko defoon sëñ Abdou Lahad bu ko sëñ Abdou Lahad dee ganale Tuubaa belal ndab yi dañ fay def ay bedd bu jaaree moom ci mi mbedd ba bee mu tëbee ci mi mbedd ñu bi bool yépp mu xool kookoy sëriñ Abdou Lahad kon bu nu demee ba réew mi toll fii war na weer wu dee wu ne ñu sant sëriñ Abdoulaye sant ñu ko yàllaa ko def ci xol yi ak biddeef yi kenn du ko fàtte ku jaar ci pénc mi ba nuy tukki te bañ a gis jëf sëriñ Abdoulaye gëmmal gëmmal gëmmal ku jaar Touba boo bañ nga gis jëf ci gëmmal xaadi pour ma maran sëriñ siit ba Cheikh Moustapha sama sëriñ sama sëriñ bi ñu tey lee julli ràpp ci bureau gouverneur sa sa maam rek julli xam nga nag sañu am satu taalibe gi koo donn mbaa koog sa kër maam bokk bokk loo wuñ sëñ bamba dañ cee bokk bi sëñ bamba sa maam feeñee mbaa koog li mu am lépp da ko jël jox sëñ bamba ni bu dara def mag ndaw góor jigéen taalibe ku nu xam na lépp dem ci sëñ bamba toog di ko déglu sëñ bamba fal leen mbaa ko atte tuuba sëriñ bi bisimilah yi addu ngaa moom yow la ñu jëm ñi ngi leen di boole nuyoo bu sell bu teey bu barkeel bu bàyyi ko ko yàlla tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah di len nuyu ci turu serigne cheikh mbacke mom cheikh abdul khadir mbacke di len jotali ak cantam bo xamne dañ koy jeme ci sëriñ amsatu mbacke mi ci bis bi nga xamne daf ko tudde cheikh abdul Khadir mbacke nga xamne magal gi mo jégué waye kon ñun ñépp ñoy ñëw moo tax ñu and ak wa fédération bi ñëw teewal ko fi waaye li doonoon yéene ci bu fekkoon am na distance ak màggal bi kon mooy ñun ñëpp ñoo fi bokk teew bokk fi yandu ndax waxuma la tudde gi waaye luñ tudde lu ñuy defal Sëñ Abdul lu ne ñoo war a nekk njëlbeen ga nekk digg bi nekk mujj ga loola li ko waral mooy kii ngeen defal bis bi ak ki ngeen ko tudde seen diggante dafa leer naññi doon loo xam ne sëñ Abdul Ahad ak sëñ Abdul Xaadir sëñ Abdul Ahad ni mu jàppe sëñ Abdul Xaadir ko da am na sëñ Mahmadan bu sa daanaka faral di wax naan sëñ Abdul Ahad ni mu jàppe sëñ Abdul bu fekkee man maa ngi fàttaliku ci jamono yi sëñ Moodu Musaa ak jamono yi sëñ Fallu ni mu ko jàppe woon gisuma lu ci dolli ko maanaam bu bu bu bu kenn yaakaaree ne situation dox ba àgg ci rek ñoom ñaar ñu war a rafetal seen diggante déedéet ndax man na dama daa ànd ak moom ba yoonu kàbb woowee ñuy wax sëñ Mahmoud Moussa ne ma maa ngi moom moom moom sëñ Fall boobee ko sëñ noppi ne ko lenn képp laa lay ñaan mooy yëkkati addiyee jox ko ngir jëmi sëñ Tuubaa ne ko dama bëgg nga séeréel ma sama tayl bi ci kanamu sëñ Tuubaa ndax dara lu ma ñor loolu tug taalibe amul kon noonu la seen diggante meloon noonu la rafetoon daanañ defante lu demee ni téléphone daa nga toog Sëñ Abdou Khadir mu ne nangam de boo sañoon tuuti rek seen mu daal yénnee ba ci Sëñ Abdou Fatah mi mas na fi am ngénte Sëñ Abdou Lahad ne ko euh, maa koy tudd si ca Baxdaad Sëñ Abdou Khadir toog bu mu yàgg mu ne ah Sëñ Abdou su ma sañoon mu bàyyi tuddee gi te yabal na ko ndax man mi tuddoon si Abdou Fatah yi su ma sañoon mu yabal ma ci ma tudd ko ndax ñun ñett ñëpp ñu bokk dund fi mu toogee ci mbaar ma rek bi ñu laataan noot tamit su Mourou Mamoun ña ñëw fi mu ko doon doxee ne ko sëñ Abdou Lahad kat nee na moo bëggoon a dem ci tuddali sëñ Abdou Fatah te xasoon na ko wax <laughs> te ah nee na léegi daa bëgg nga far demal ko <laughs> te loolu man miit fekke naa loo xam ne lu ñu doon waxtaane loolu moo ko leeral waaye dane ma lee nga gis mu daal mu yónnee ci mu daal di woo Baara Ndiaye suñu daal di yónni Baara Ndiaye Baara Ndiaye ñëw suñu suñu du xay daal may woolu fa ma ne mu ñëw Baara toog mu ne ko lu ma la waxoon ma nettaliwaat Baara Ndiaye loolu Baara ni nettali ko suñ bi ba mu àggee suñ bi woo ma loolu moom doo ko nettali moom la leneen la mbirum biir kon nag loolu loolu lu wér a wér la loo xam ne daanañ defante xaatif seen diggante ñu yàlla boole woon la ñoo xam ne san euh, si da daa wax ne man sant naa ndax jigéen ak moroom ja liñ baaxoo woon mooy bu la bu